ndeysaan daa kontaan daa kontaan ndeysaan ndeysaan mais ren yow loo si gàddu. après après ah ndeysaan daa kontaan ndeysaan lii lii lii lii ndeysaan. kii mooy yaayu e Pawlish. ndeysaan ñett ma boole maram ma ca yow de ca la kontu baaba sama sang ñëw na. biti mm. jàng la ni waaye. maa ko tudd Cheikh maa ko tudd waaw maa ko tudd waaw waaw bis day tudd si internet bi. jumaay mooy sorgho yaa mooy jumaay yaa mooy sorgho Yeah, okay. Morning. imaam nee na tuddam ko Seydina Muhammadu Rasul alayhi salaam la fay dama ni Modou Baye te ñoo yóbboon war gan amatunu kan jàppale Seydina Muhammad loolu rek doy na moom la suñu borom doyoon ba mu neex ko mu jël ko wàcce ko ab saar ni ko wan na jëme isaaxa waa dal na saaxibukum baax wa wa maa yantiqu anil hawa bi nga màggee baax nag askan bi nga bokk bu ci képp gënul mu day li fi sa maam bay fexe nga ba ruus yow boo yegsee tabarkàlla macha allah ñun sax amatuñu kàddu wala kàddu bu baax bu nu koy wax ñun ñu dem ko wax ndax sa maamay rasulillah قمر هدايا العناية ربنا والشمس بالدين لا مصباح من دلال تمام إمامنا جد فرنيخ تمبلي كر مام لباس يم تملاي ميجرون سمونينا فنون الكرام سيدان مام مولاي مورندال جيت سمام مورندال جيت أجيبو sidina Limaamu Laay moo taaj boo di jaam dara yi xaawoo te ci ñoo leen jaam sa baax Thank you. dama ni doom bi bisu Dagana la ñu ko tuddee doom walaay bas caw laay sa jigéen walaay mbooloo ñu déglu imaam nee na ñu déglu nag ñu commencé tudd bi ay la la ay la Seydina Rasulullaay ay la ay la la ay la la moom di nuyu mbooleem mbokki laayeen yëpp di nuyu taalibe di nuyu tam nga xam ni si moo tax ñu daje fii muy Pawlish Mbaye nit ku baax la te bu yàgg lool sama xarit la nee na mi nga xamee kër Jaga xale la waaye. xale la waaye. xale la waaye. xale la waaye. teewul. teewul. day ñëw di ma nemmeeku. day ñëw di ma nemmeeku. jël ñaqam. jël ñaqam. moom sëñ Sàmmee. moom sëñ Sàmmee. indi daara ji. indi ci daara ji. te ñun. daara ji. daara ji ak jàkka ji. ak jàkka ji. rek. rek mooy suñu àddina. li ma yëngu-yëngu ci àdduna. li ma yëngu-yëngu ci àdduna. teewul. teewul. dañuy ay xewalam. dañuy ay xewalam. bari. bari. andi. andi. di ko def ci daara ji. bëgg nag. bëgg nag. ñëpp ñaanal ko. ñaanal ko. xam ne xeer la xeer la waaye waaye diineem diineem bàyyi ko ginnaaw kon nag loolu la seedee sëriñ bi ak mbooloo bi ñaan yàlla xale yu tudd tey xale yu tudd tey yàlla leen def ay mag ba ñu am barke am diine am diine dugg ci lislaam dugg ci lislaam dugg ci lislaam dee ci dee ci nekk ci ñëpp ñëpp ba teew teew yàlla ba saaju bisu mi ngi wax fil bi fil bi kay fil bi foofu fil bi fil bi wàcc daa bëgg mojj fil bi fil bi foofu bàyyi ko wàcc waaye waajal leen lumière yi waaye waajal leen lumière yi waajal leen lumière yi ba pare tool bi caméra jaaxul na ko def leen tànk rek dina wax ak yéen. dina bëri turandoo da jagat. waaw ku ne dina la tuddee doom Pël Fuuta sax dina la tuddee doom. mënuñu ko tuddee ndax moom la ñuy xool yaa ngi ma ni ko Pël Fuuta sax dina la tuddee doom. waa jooju nga xam ne koo àndal gàtt sama parce que lool lool lool lool dañ koy gis nii ay mbokk mu ëpp lu mën a. yàlla xam ne loolu la nekk gàpp. nag soo nekk. kenn wala lu micro ma. woon lu bëri lu muy bu duggee dañu Ablaye Seye moo koy sax jigéen bu baax moo koy nag ñu koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko suñu kër di ñaanal yàlla yaram bu baax di ko ñaanal ñëpp loolu laa loolu moo may kontaan loo ko de kontaan la ci Ablaye Seydina Omar maa ngi lay ziar. mais je suis content mon jeune frère. comment tu yàlla yaa si jàmm. macha allah macha allah eh, tey nga ñëw dooleel sarak. sa hmm. xarit Pawlish Mbaye. Hmm. Eh, eh. laataa loolu gis nga li nga xam ne sax jot nga ko see yóbbu si hmm. ay kaddu. muy wax ne kaddu mbégte. wala ca gën a neex mooy ñu dippee doom ji kenn ki Bijou ngoone dëgg la loolu suba sax la. Bijou Ngoné bu ko tuddee doom Omaro lañ ko tuddee. Faramaare ñëpp lañ ko tuddee. Sénégal lañ ko tuddee. Mhm. parce que bijou moo ni toll. jigéen ju baax la. Mhm. jigéen ju am yar la. Mhm. jigéen ju am sutura la jigéen ju am ngor la jigéen ju xam teraanga la kon li ñuy def rek mooy ñaanal ko yàlla guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax yàlla ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla aar yàlla ko yàlla yiir yàlla ko yàlla taxaw ci barke borom Tuubaa Cheikh Saliou Mbacke doom ji nag yàlla barkeel te yàlla dund te yàlla am ndey ak baay ci barke borom Tuubaa Cheikh Saliou Mbacke lu tuddee ngoon a daal Sénégal lañ ko tuddee na daal suma xol sedd waaye Faramare ni kóllëre la ñuy doxee. Mhm. Mhm. macha allah mais kóllëre ginnaaw lay féetee mon ami. Mhm. kóllëre ginnaaw lay féetee te àddina amul solo. li am solo rek mooy rafetal. li am solo it mooy sàmm aar. li am solo it mooy fexe lépp di dox lépp di baax. Pawlish ñun la bokk. rakk la doom la xarit la. li ñu war ci bis bi lañ def. kon tey wax dëgg yàlla li ñuy ñaan rek mooy yàlla guddal fanam te wéral ay cëram bu baax baax te yéen a am. ci gan yi ko yàlla may yàlla dund ba fekkee seen njariñ mhm. ci barke borom Tuubaa Cheikh Saliou Mbacké damay dem ci ay quelques rendez rek soppeeku maa ngi ñëwaat ci kanam bu ma ñëwee ñu yaatal guy gi su ma ñëwee ci kanam ñu wax